mais comme yaa ngi public SN. dégg ma lan ma. yaa ngi public SN public SN laa la wax. public SN moo fi ne ku ma. xool xam nga ne moom laay seetaan moom moom laay def lépp. Mm-hmm. waaw kay. dañ laa gëj a gis. waaw mais gëj gis bi comme ni ma ko waxee woon rek sànq maanaam euh, lépp loo gis rek euh, làqatu la liggéey ñëwaat force ñëwaat ak doole parce que boo amee technique ah technique boo ko amee maanaam loo lu ñu la gëj gis gëj gis boo ñëwaatee da ngay da nekk ci planche yi ñun ñun yàlla daf ñoo dimbale maanaam bi nit ñi di xoole wala nit ñi di tëdd dañoo demoon jàngi ji jàngi mooy nag heure bu ñu génnee rek yàlla day def maanaam fa ñu tege woo fa mës a jógee parce que yàlla def na ne maanaam bu dee technique wala talent lépp macha allah mu ngi ñun. sa diggante ak aar lan la. waaw sama diggante ak aar moom mën naa ne bu euh, ngi mel ne yaay ak doom parce que tey jii sama yaay su ma nàmpalul ba ma toll nii euh, jox def ci man li mu war def ci man tey jii kon du taxaw tey di wax ba àdduna bi di ma dégg tey jii théâtre lu ma mel tey jii moom moo ma ko def tey jii lu ma am ci àdduna moom théâtre la tey su ma mënoon di ko feccal di ko raamal di ko tagg di ko tatagal ah di ko defal lépp kon dama koy defal théâtre ndax tey jii su ma génnee tey jii même bu dee benn nit. dinañ ne ma ñux ma ñux kon lan la théâtre moom moo ko def si man maa ngi sant théâtre bu baax. diggante ak Combé. waaw kooku moom frère la. frère la parce que gars comme gëj nañ leen a gis ñu ngi naan parce que ñaari nit bu ñuy ànd chaque jour nga jékki-jékki gisatoo leen ñii naan dañoo meroog dañ leen a liggéey ak yu ne lañ lañ lañ ciy dégg fu mu toll. sa waay dama la koy waatalaal ci gàmmu lañ nekk barki Serigne Babacar si mi ma yaakaar ah man de xalaatuma sama àdduna xëy benn jour ñu jote parce que xam nga maanaam ñun théâtre boolewuñu ma moom théâtre bon dis bu fekkee théâtre boolewu leen maanaam seen ànd day dem yàlla def ñu bokkaat théâtre euh, mu doon sama confident doon sama gaañ doon sama xarit di ma xeexal man même chose dama koy défendre fu ne moom tamit lu ñu am lu ñuy wax maanaam dama koy woo ne ko sa waay léegi lii nanga ma nanga mun ne ma léegi lii nanga bu ñu amee programme sax ku njëkk woote ci moom dangaan ko damay woo euh, mu ñuq danaan la déedéet wala man sama woowee damaa la bu dee wax ngaa kombe jarul ngay jaar si man c'est parce que muy caché dara duñu boole maag moom sama la sama conseil la sama confident déggoo bi mooy li ma la wax rek. Mm. maanaam mel ni da ngeen di fanaan ci benn néeg. sa waay billahi kombe sama lépp la xaalis mosuñoo boole jigéen mosuñoo boole tey ji ku ñëw naan ko mu ñu xul yëgle nangam ak nangam dalay freiné balaa ma yegg si ci man. mais est-ce que du ngeen tiit yéen jeunes yi nekk ci aar bi bu ngeen gisee mag ñi. à chaque fois am na ay mag yi nga xamante ne bu ñuy demee ba jëm mag ñu leen di ketal ak di leen def yooyu noonu ñu naan aar ne laar l'art ne paie pas yooyu est-ce que yéen du ngeen toog seen ruqu xaw a am njaaxare tuuti. waaw mais xam nga tax man la euh, tiit duñ ko def parce que tey jii ku nekk am nga jaar-jaar mag ñi tey bu dem démb doon tey dañ naan la ñu daloon ci bu commencement bi nii bu doon nii la duñ ko duñ ko def léegi nag ñun ñi nga xamante ne ñoom ñooñu jiitu maanaam leçon lañ ñuy jox. que nga xam te da ngay a préparer sa ginnaaw parce que jamono tey jii li nga mën a defal sa bopp tey doomu aadama mun ko defal yow yaa mën a faj sa bopp yaa mën a jox sa bopp lekk yaa mën a jox sa bopp naan mën a toppatoo sa bopp tey jii mënoo xaar état mënoo xaar lenn léegi nag yow yaay préparer sa bopp nga xam ne da ngay économie dara di ko denc marital parce que feebar day day day dalay dab tey ji bu la feebar dalee dabee te fekk yow dencoo dara après di nga jooy parce que tey jii àdduna bi yëpp dañuy dégg ne diw feebar na ñu ngi koy kattal patati nangam ak nangam léegi ñun nag en tant que jeune dañuy teel a préparé aussi loolu nga xam te ne dañuy denc suñu lépp bés bu ñu feebar kii ñu mën a faj suñu bopp. dafa mel ni soxor ak bon moom dalatul doxul seen diggante sax waxuma doxatul seen diggante parce que ku gis match bii nii ngeen déplacé wu ñëw ba fii nii ñu ne artistes yee joué te ñu ne artistes dañuy laga ragalante du ñu laalante du ñu laalante yére du laalante ñàkk affaire yooyu noonu te ngeen nar a dugg ci teeroo terrain bi tey jonjoo kon daa mel ni yooyu doxul seen diggante. waaw mais am ñi koy wax xam nga. loolu même bu am na nag ko nag. tuuti xam nga àdduna maanaam lépp am na amul fii. mais tey jii yàlla man bu ma jiitalee suñu borom. Mhm. damay jiite suñu borom si lépp parce que boo xasee ba def sa xalaat ne ah sa waay daf may liggéey wala micro bii ne su ma ko laalee dina am lu ma si dal tey jii mën nga jóge fi dem feebar nga ne micro bi ñu ma diimale wala micro bi ma téye woon loolu moo tax c'est parce que dañ la ko wax la da nga koo def ci sa xel mais maanaam man suñu borom laay jiital suñu borom laay ji du tee nag dina aar sama bopp ba nga xamante lu ma waaye di liggéey peut-être du jar si man parce am na maanaam tey ji suñu jikko ñoo yamul tey ji koo gis ak jikkoom ku nekk ak ni muy ñëwee waaw man moom franchement mi koy wax gëw ma ko am na mais gëw ma ko waaw am na mais gëw ma ko neex li nga gën a def ci aar moom moo nekk ba ngay jënd télé bi ci Diop faal <laughs> loolu moom loolu doo ko improviser noo ko defee loolu ci géy teraanga loolu moom mësta am ci aar moom yow leer na ne loolu <laughs> yow yow leer na ne yow li nga def ci aar looloo ci gën a neex yow <laughs> loolu moom amul loolu amatul maanaam loolu amatul xam nga jëndee woon télé bi noo ko jëndee woon damaa ko salaamaaleykum papa ça va ça va bien télé bi ñaata lay jar ne dem télé waxoo ma ñaata ma ne ko fay naa la ci francs mu ne ma du la xaw ma 1000 xaw ma ñaata du ma du ma la boo ma ko fayee sax du ma la ko jaay. léegi nag problème bi mooy bëgg naa di ko di ko naxaral loolu moo tax ma ñaanaan ko profondeur télé bi ñaata la. <laughs> waaw waaw mu doon mu doon ay ay affaire yoo xam ne da nga koy fàttaliku muy neex c'est parce que mës nga koo def. xam nga tey jii boo toogaatee di ko xalaat mu lay fàttali ay affaire yu bëri bëri sant suñu borom la quoi. ñu ngi lay mais Sidi. sa yaay moo la tere. yow diriyanke nga. non yaa man dama ñëw. Sidi Saliou maa bëggoon a wax. taxaw ni non xaaral instant bii ñëwal Saliou Sidi Saliou Sidi waa Dakar. Saliou damaa war a gañe waa Dakar. tere yàlla ne. ay way dafa ne ci Saliou ngir yàlla Sidi. dëgg dëgg yow laay way di la waxtaane waaw maam Saliou monu tre yalwaani xaaraane waaw ñu ngi ci gàmmu gi nag ñu ngi eh, Sidi si Sidi ñu ci gàmmu gi mayal dara taalibe Cheikh ñu ngi ci gàmmu gi xam nga xam nga xam nga man nag oui ma defal dara xoolal taalibe Cheikh yi nga koy may ñu dag ko dugal ko ci balaa war a way taalibe Cheikh sax ñu jël jox jox ma benn wéyal Seydina leen mbay kañ leen mbay ah. tàgg leen mbay kañ leen mbay oh. mbay si mbay si mbay si yaa yor xilaafa mooy bandi comme eh, gërëm nañu la waaw mais kontaan naa man bu baax a baax a baax di leen ñaanal yàlla yàlla defal leen SN nag moo fi ne Public SN bay baa ngi nii eh,